Abla kii waaw bisimilah. sëñ Abla Bousso. waaw Moutalib Lat Bousso Moutalib. waaw Abdou Lahad Bousso Baye Serigne. Abdou Lahad Bousso Baye Serigne. waaw Abdou Lahad Bousso Thierno. waaw sëñ Fallou Diop. waaw moom mooy jiite eh, yor kàddu waa ñoom la doon wax ci wàllu liggéey boobu ci jumaa ji ñoom la. waaxu moo xam ne leeral ko bisimilah. bisimilahi rahmaani rahiim. alhamdulilahi rabil aalamiin allahumma salli wa sallim wa baarik alayhi. sëriñ Serigne Touba. sëriñ sëñ bi ñoo ngi fi teew. teewaay bi nag li ko waral mooy bi ma ñëwee fii barki démb dafa am liggéey boo xam ni ñun ay mbokki taalibe ñun la ko suñ pas-pas sant li tax suñ pas-pas sant ko nag dañoo yàgg xam sa yitte ci jumaa ji nga xam ni lépp lu aji ci jumaa ji soo sañoon yaa koy defal sa bopp yàlla dogal nag ci liggéey bi ñuy liggéey ci muxaddimaatul ma ca réew ma Angleterre yàlla dogal sa at mu nekk sëñ aafe buso daf ñuy woo buñ màggalee ba bis ba dellu si di ñu bégal suñ boroom dogal nag daaw sëñ fàllu Diop mii nga xam ni mooy coordinateur bu bu bu yokkee bu Angleterre bi yëpp ci lu jëm ci wàllu mu muxaddimaatul ma am kaddu yu mu fa jëlee kaddu yoo mu jëmoon ci jaayante añu jumaay Touba ndax kaddu ya kat li ko waral mooy ñoo xamal ne jumaa ji kat ajjuma ju nekk ab dépense am toll na ci quatre-vingt-deux mille bi sëñ Fallou Diop ñëwee wax ma ko ñu waxtaan ci ba juboo ma ne ko loolu kat sëñ Fallou day jeex bis ni ki tey te ñun kat nañ ko def ci ak coobarewu te suñ pas-pas santuñu ko bañ ko yëkkatee la ca njëkk lañ ca njëkk a dajale ñu yónnee ko ci jumaa ji sëriñ bu Bousso ak njabootam gii ne leen liñ bëgg ngeen demal nu ci sëriñ ba ngeen ne benn ajjuma lañ joxe waaye suñ pas-pas mooy yoru añu jumaay ajjuma ji ba faw sëñ bi teel caa gàttandu teel caa taseeg ñun lool ndax biñ ko defee dañoo daal di jël at mi muy juróom fukki ajjuma ak ñaar ñun ñu daal di sasoo juróom fukki ajjuma ak ñaar ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Angleterre sëñ Tuubaa gàttanduwaat ñu fi am ñoo xam dañu koo dégg ci réew yi fii ba Amérique Italie Espagne kenn woowu leen ñoom itam seen pas-pas moo leen ko sant ba fii mu ne ñu ngi ci téeméeri ajjuma ak ñeent yoo xam ni jëf ji teew na ba noppi léegi nag ren jii nag ma ne suñu pas-pas dañoo santaat ci 2024 bi ñu am junniy murit yoo xam ni kenn ku nekk da joxe 82 mille muy 82 millions ci at waaye loolu ba tey 82 millions yooyu suñu bëgg-bëgg mooy li nga bëgg ci jumaa ji te tuñ juddu yàgg koo gis yàgg koo yëg yàgg koo xam moom lañ bëgg wuutu la ba lépp ñu yanu ko nekkul loo xam nag dañ koo tàmbali dañ koo bëgg tàmbali ñëw fii dañ koo tàmbali ba am ci yàqin ñoo bëgg seega seeral na ko te ñaanal nu te te te ndax ndax junni murit yi tàmbali nan te ba ba fii ma toll fii ma toog nii am na ñuy woote ñu leen di dugal kon nag mbakki lii la lañ wo lañ doon andi. ñu àndal sëñ sëñ Abdou Lahad bu sa ñoom ñi ngi nii suñuy jëwrin ak sëñ Abdou Lahad Thierno mi nga xam ne ñëwoon na fa ñi ngi ci biir lim bi ñooñu ci jiitu kon kon moom ah, ah. moo doon kàddu yi ah. waaw sëñ bi waaw li mu wax rek moom sa sa liggéey ba nga tam ba nga doon defal waa jumaa ji daal ñoom dafa mel ne dañoo ñëw ngir aw awula ci ci wàllu la nga waxoon ne matériel bi bu doyee na ngeen geesu ñu yor liggéeyub sëñ bi euh, maanaam añ boobu nga xam ne ñiy bale si ak ñi nga xam ne ñoo ñoo daa jubbanti sàppe yi ñoom lañ ko daa toggal euh, dañoo gis ne léegi diis na ñoom ñu jëloon ko yanu ko muy quatre-vingt mille euh, ci juma ju nekk ba ñaari at yi mat na nag li nga xam ne moom nga moom nga sosoo woon yow ne ne da ngaa bëgg yanul waa jumaa ji e, ba taxawaloon loo xam ne amoon amoon nañu ñoom dafa mel ne dañoo bëgg quatre-vingt nga ko ñaari at dañoo bëgg nag quatre-vingt millions yi dem ba doon junniy murit yoo xam ne waxuma la añ bar àjjuma waaye day dimbale ñëpp loolu nag lañ ñëw di la ko seeral tàmbali nañ ko ba ba joxe nañ lu man ñaari at dañoo bëgg nag su lawee mu wuutu la nga bëggoon yow waaw mu wuutu la nga bëggoon waaw waaw reer wu dee ñu ne lay joxe. waaw mu ngoog. bañ ko tàmbalee ñenn ñi tàmbali waaye dañuy ñëpp mujj waaye. am mhm. na ñeenti weer yu mujj yi kenn joxewul dara ñeenti weer mujj yooyu waaye dama ko delloo ci kër ci kër gi. Mhm. waaw ñu dem ma doon ma ñeenti weer yu mujj yi mu ñeenti weer ñi ñi ñi kër kër bu mag gi. kër bu mag gi ñi ko gi. Mhm. ñoom laa ko mujj jox. dégg nga li mu wax la jërëjëf jërëjëf incha allah kon ñu tàll bisimilah. نور لمعتقد نار لمنتقد أكرم gannaaw bi ñu sant Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñoo ngi fii tey ci kër sëriñ bi àndoon nag nag euh, jëwriñ yi nga xam ñoo bàyyi ko Angleterre muy Serigne fa euh, Abdoul Akim Mbaye ak sëñ Fallou Diop ànd ak waa daayira Muxaddamaatul Xidma secrétaire général sëñ Abdoulahat bu Bousso ak euh, sëñ bu Bousso maam Asta jëwriñu relation extérieure ak sëñ Abdoulahat maam noo sëñ bu Bousso euh, doon jëwriñ ji nga xam tam ñoo di ànd waxtu wu ne ci liggéey bi ñu sant yàlla bu baax nag indi woon liggéey bu mag boo xam ne buñ tàmbali woon la mu jëm ci añee ajjuma yi tàmbalee ko woon ci euh, Angleterre xalaat bi juddoo woon ci kër sëñ bu Bousso sëñ Fallou Diop ñoom yóbbu ko bañ àggee ànd ko jëwriñ ya nga xam ñoo fa nekk sëñ Abdou Akim ak sëñ Baara Ndiaye ak jëwriñ ya fa nekk yëpp yàlla dogal liggéey boobu mu ñu tàmbali ko ba am ci juróom fukki ajjuma ak ñaar muy at muy 2023 ba jàll na ba egg na ci 2024 tey jii nag ñu ñëwoon doon ko gaaral si xalif général di Mouride Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu mel ni am nga tanu mu mag am na ci bi xalaat bi juddoo it sëñ bu Bousso al imaam ak daayira bi joxoon ñu ndigal tam ne nañ ko yaatal ci àdduna bi ba waa Amérique waa daat ci wuy si ak waa Europe ak ba tey liggéey boobu yaatu na fépp Cheikh Modou Mountakha nag dolli nu ci yaakaar bu wér ndax nee na lii dafa mel nem gàttandu la ndax naka jekk bàyyi na xel liggéey bi ngir jumaa ji ngir lu jëm ci waa jumaa ji loola nag tey jii nee na lii dalal na ci xelam kon euh, ab soññ la ci ñun ndax moom kat naka jekk mi ngi fesal yitteem ak ak bëggam ci liggéey bi ndax Cheikh Modou Mountakha indi nañ bagage mu yëkkati jëm moom dem ba ci jumaa ja Cheikh Modou Mountakha indi nañ fi ay liggéey fii nii mu ne liggéey bii day daf maa ñor lool ma jiital ko ci kanam ba yéen ñi nga xam ne yéen a yëngu ci li jëm ci jumaa ji waxtu wu ngeen ñëwee di indi matériel bu ci bu ci lañ ci soxla bëggee na ngeen déglu ñii ñii nag ba mu ko waxee mooy ñii nga xam ñooy jëwri ñi nga xam ñooy taxawu jumaa ji ba bu ngeen la ngeen soxla ci matériel su doyee leneen lu ngeen am ngeen def ko xaalis di ko indi muy dem ci waa jumaa ji tey jii nag dafa mel ne liggéey boobu Cheikh Modou Mountakha gën nañu ko confirmer ndax nee na dalal na ci xelam jox nañu ci ndigal tam ñu yaatal ko ci àdduna bépp rawatin na nag li ñu tàmbali muy añi ajjuma yi muy ajjuma ji ci ne fukki junni ak juróom-ñett quatre-vingt mille euh, yàlla dogal na am nañ ci cent 104 ajuma lay xalaatu nag tàmbali bi mooy ñu am ci junni murit junni mille personnes yu jaayanteeg Seex naa Seex Ahmadul Xadim kenn ku ne jël cëb ajjuma tey jii nag am nañ ci ndigal ndax sëñ bi neen danaa ko ànd ak yéen danaa ko ànd ak yéen ci tàmbali bi danaa ko ànd ak yéen ba ci ba ba ci la ci daayira bi bëgg ndax daayira bi moom yàlla moo dogal ma seen yitte jëpp mooy sama yitte lu ñu bëgg rek su ma ko yëgee mu yéwén kon nag noo ngi ñaan mu yàgg fi loolu tànd ku wér jël kàddu itam jébbal ko sëñ Fallou Diop euh, mi nga xam mooy jëwriñ ji nu xam ne itamit du du du gàllankoor dara ci liggéey yi fi nekkoon li jëm ci maintenance li jëm ci entretien li jëm ci matériel li jëm ci waajal màggal gi li jëm ci waajal koor gi ndax liggéey yu mag lañ fay li jëm ci bàq ya lépp loo xam ne lu daayira bi doon yëngu rek loolee lii du ci gàllankoor dara lii day liggéey boo xam ne rek mbooloo mu takk muy xëyel sëñ Tuubaa ci jumaa ji ak di ko ca gontal ñu xam ne ñii kat war nañ leen añal di leen reeral looloo tax maanaam paas bi ubbi kon nag ñu gën a jaajuwaat gën a soññewaat suñu bopp ci liggéey bi ndax kat liggéey ba egsi ci ki fi nekk Seexul Xadim mu gërëm ko soññ la ne danaa ko ànd yow kon loolu dal na xel. diaspora buñ ko waxee muy bitim réew lu aju ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma buñ ko yëkkatee xel yëpp dana dem ci Cheikh Mamour Mbacke moo Cheikh Modou Mourtada moom mi nga xam ne mooy suñu kilifa ci bitim réew ndax keroog bi mu gisee ne liggéey bi daa war a yaatu ci bitim réew daa ñëw ci daayira bi euh, daayira euh, daayira bi dañoo ñëw ci moom mu ànd ak mu jubóo daayira bi jël daayira bi yóbbu ko bitim réew ba tey liggéey bi fu mu yaatu ci bitim réew rek foofu danañ ci jaajëfal Cheikh Mamour Mbacke ndax ci teewaay sëñ Blaat mii ak sëñ Blaat ñoom ñii ànd nañoo moom tournée Italie ak Espagne kon nag ñoo ngi xam ne rek kàddu yooyu lañ fi doon indi yàlla nañ ko yàlla nañ ci yàlla boole defal barke waqi di xawaay jële si na daamoo fi xidmati wa ablahum maaraamoo ina li si na saaraxo li xidmati falahum diyaara wasal jannati jërë di nuyu ak a ziar baax itam jëwriñu liggéey bii nga xam ne ni moom la ñuy bëgg a yëkkati suñu kàddu muy muxaddamatu xidma di sëñ Afia Bousso ak mbokkam yu baax yii mu àndal tañ teew nii muy sëñ Abdoulahad moom soxna maam Assa sëñ Abdoulahad moom sëñ Moutalib sëñ Abdoulahad moom sëñ Thierno ak sëñ Assane Diop xit mi nga xam ne mooy jëwriñu diaspora bi jataay bi nag li ko waral rek mooy tàmbali woon ab liggéey am ca tawfeex ba tey yàlla dogal ñu ñëw gaaral ko ki fi nekkal Serigne Touba mu Cheikh Modou Mountakha liggéey bi it biñ ko ko gaaralee itam moom naka jëkk yitteem ak bëggam lépp mus sa jóge ci jumaa ji lii nag biñ ko ko waxee bég na ci mbégte moo xam ne nii jort naa ne képp koo xam ne seetaan nga vidéo bi danga xam ne mbégteem Cheikh Modou Mountakha mii. mën naa àggale yéene taalibe yi fañ ko bëgg àggale ñuy wax nag ne junniy murit lañ bëgg waaye yi murit yooyu itam yi jëf lay doon ndax kat wax ji yomb na waaye nag jëf ji moo gën a jafe kon képp koo xam ne dégg nga vidéo bii appel bii ñuy def nii ba yàlla doon la nga maanaam lu maanaam euh, nga am ci taw feex ne dama ci dugg soo ci duggee rek te yéenee jëf ca saase bu ko wàcc ndax lu baax ku ko ku koy jëf doo ko wàcc ndax suñu borom kat moom buy jëf du tàggoo kon nag moo tax képp koo xam ne yaa ngi ciy dugg saa boo ci duggee rek nanga daal di jëf ci saase wala boo daal di jëf ci saase itam balaa yàgg na jëf na sa jëf ak ndax loolu mooy wane ne junni yi mu murid yi ñu bëgg dana mën a jàppandi kon xam naa ne kàddu yi kàddu yooyu rek lay doon di sant bu baax nag tey gërëm te xam ne itam képp koo xam ne itam bëgg ngaa dugal sa addiya ci mu muxaddamaatu xidma ci añu jumaa ji muy fukki junni ak juróom benn di quatre-vingt mille bu fekkee ne ci numéro wef bi la 77 la 686 treize treize Abdoulahat Bousso ngay def boo ko defee rek boo ko tàppee boo duggee Wave bi dina la wuyu nga dugal sa addiya bu dee ci Orange Money bi itam mu xaddimaatu ma ngay bind ngay def tàppee ko moom itam numéro bii mooy numéro ba nga xam ne mooy numéro Orange Money ba di sant yàlla bu baax nag amit feex nun taalibe yi nag lii ñu ñeme ci lii tax lu tax ñu ñeme ci mooy ñii nga xam ne nii ñooy kilifay liggéey bi di sama sëriñ si toog jàkkaarloo ak yéen wax dëgg yàlla bi ñu liggéey liggéey bi ànd ceeg ñun rafetlu ko yëmuñ ci loolu waaye ñoom itam nii ñuy jëfee suñ fukki junni ak juróom-benn yi ñoom itam noonu lañ jëfee seen i fukki junni ak juróom-benn kon mu wax mu wax ne rek ne ñoom liggéey bi gënuñ leen ko bëgg waaye nu itam duñ nangu ñu gën ñu ko bëgg kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ci barke Sëñ Tuubaa barke Cheikh Modou Mountakha fii ñu ko defee yàlla ñu fi yàlla bàyyi nun ñëpp ñu teewaat ko at yu bari lool te kilifa gii bañ a manqué kenn ci noonu bañ a manqué ci barke Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul Mustafaa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa